xam naa solo si càmm bu nawet neexee rek élevage neex rek dox rek Sénégal dox loolu par l'observation dañ koy gis jàng jar am njàng nit dana jóge Kolda dana jóge gannaaw Jolof di liggéeyal élevage waaye liggéeyal ko moom rek ma ngi koy liggéeyal ko dëkk dakaar ma ngi koy liggéeyal ko dëkk Oussouye ma ngi koy dëkk fépp fu doomu sénégalais nekk ma ngi koy liggéeyal sax ka nga xam ne sénégalais la waaye ma nga bitim réew parce que ay njaboot gi mu fi bàyyi ñu ngi cay jariñoo donc ngeen gis ne yéen solo si ngeen am heureusement ñu am président de la république boo xam ne xam na ko moo tax bi ñu jàppee ne feebar bi dugg na ci réew mi gis ngeen li nga xam ne def na ko fi macha allah loolu sax moo tax tey journée de l'élevage ni ñu ko daan defee defee wuñu ko. ma ne ko nag monsieur le président de la république dama bëggoon comme défé wuñ ko noonu li nga xamné mo moo ëpp solo ci xéet wi nga may ma autorisation ma def li tubab di wéx d'une pierre plusieurs coups célébrer ko symboliquement waye tassanté ak ñom comme prise de contact waxtaan ak ñom nangu ci ñom seeni mebeut motax li ngeen fi wax lépp dana am solo bu ko défé ñu défar ko dal ko jébbal mu wax ñu jour bi nga xam ne moom dana leen ko bu boobaa ñu seet ci format bi nga xam ne moom proposé nañu ko ñu dellusiwaat ci yéen waxtaan ci ak yéen loola nag buñ ca jógee mooy tax ñun ñu am ndëgërlaay pour mën a wéy la li nga xam ne tënk nañ ko parce que cadre bi mi ngi fi wax naa ko sama discours gis-gisu président de la république fi mu bëgg a jë jëme sàmba bi càmm gi wax na ko cadre bi teg na ko ñii ma ànd ak macha allah également waxuma xarañ gi ñu ci xarañ mais bëgg-bëgg bi nga xam ne am nañ pour servir le secteur kenn naataatale ko yéen kasalik bu ñu fi jógee ne comme def nañ cérémonie bu mel nii euh, geneen wàll gi mooy yéen ñëpp koo ci soxla samay bunti ubbi naa ko.